loolu nag lu metti la parce que suñuy doom ak suñuy rakk ñoom ñoo faatu ci manifestation ñu ngi aussi masalu coono ñi nga xam ne dañoo gaañu ci manifestation yi ci nekk si l'hôpital ñooñu it président Macky Sall dina ay matukaay yu wër pour que ñoom ñëpp ñu mën a dellu seen kër si jàmm ak salaam yi fi am nag. bu fi mel ne am Sénégal yëpp gëj na fi ñëw ay xale dugg ci biir dëkk bi di toj di yàq yi ni ko loolu baaxul ci réew di yàq yi l'ensemble des acteurs ay at pour defar ko loolu baaxul ci réew war nañu taxaw tere loolu pour que loolu bañ fi amati Sénégal nag dafa nekk réewum jàmm

loolu bañ fi amati ñu xam ne tamit ñi ñëw senegal di fi indi seeni alal pour dimbali réewu Sénégal pour dimbali xale Sénégal buñ fa ñëwee dañuy defar ay xëy parce que xale yi xëy moo leen moo moo moo moom lañ bëgg xëy boobu nag ñun Sénégal rek war ñu mën a defar xëy boobu xëy boobu nag mën na ñëw ñeneen.

da nga koy laaj nit ñi boo ko laajee nga wut ko boo ko wutee ñu woteel la. boo ko wotee surtout la majorité présidentielle. kon nag war nañ xam ne nii réew mi jàmm wote rek moo ñu mën a wuti ku bëgg réew mi bëgg laaj réew mi waroo yàq li réew mi tabax lii tamit li ñu am fii ñu fàttali ko rek que lii problème la boo xam ne nii day am fépp. parce que nit ñi ay nit lañu ku nekk nag ni la yàlla bindee waaw bu fekkee ñaari ndaw Sénégal dem nañu ba boole ba si am lu leen boole lu leen mënti boole ndax Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu ne Adji Sarr ak Ousmane Sonko Adji Sarr nee na Ousmane daf ko dal ñun xamuñu ci dara ñu nekk seen biir néeg

bu fekkee ne defu ko yoon wàcc ko mu continuer ay activité loolu jarul woon tax ñuy nekk ci bedd bi di toj di sànni xeer di yàq dama ñu gis sax da nga xam ne dañuy jël ay bikk di yàq tali te tali yi moom mooy tax dem xëy loolu du dëgg bi yoon nit ñi dañ ko war a ñaaw ñaaw ñun ñaawlu nañ ko benn bokk yaakaar fii de ñaawlu na ko ba bu fu mu mën a yem moo tax

xam nañu ni du affaire Sonko bi rek mais xam nañu dëkk bi metti na parce que fu ñu toll nii coronavirus bi ñuy wax nii mbas mi dafa dugg ci réewum àdduna bi yëpp ci réewum àdduna bi nag bu ci duggee nag rawatina suñu réew yi néew doole donc loolu mu nekk lu métti xale yi tamit jaar ci pour génn ci biti lu ngeen wax ni nii rek président Macky dégg na leen wax na ni mu woon def sax mais dina dolli def pour que xëy bi am.

ni ñu taxawee alkaati yi ni ñu taxawee ba yëf yi dal parce que mënoon a gën yàqu fii kooku tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di sant euh, ñëpp ñëpp ñi ci bokk ñi ci wax kilifa diine yi ak association yi ak syndicats yi ñëpp wax nañ ci pour réew mi dal ñëw nañu ci réew mi dal réew mi dal na incha allah bu ko bu soobee yàlla gi ñëw dañuy dem langue politique bi. ku nekk si ñoom indi sa xalaat ngeen waxtaan ci ñi ku sénégalais yi wóolu ci li nga wax fi nga bëgg yóbbu réew mi ñun ñëpp ñoo bëgg réew mi dem kanam te bëgg nañ réew mi dem ci kanam mais dañu bokkul ay yoon fi ñuy jaar ba réew mi egg suñu bëgg egg si bu boobaa nag sénégalais ñoom ñoo ñuy atte ñoom ñoo ñuy ne jël nañ kii wala jël nañ kee mën nañ ñi xam ne loolu rek boo amee ay programme demal ci sénégalais nga waxtaan ak ñoom ci dal ak njëkk ak taraanga